alors Ousmane Dia en tant que euh, directeur établissement public de santé euh, nouvelle bi bi nga ko déjà nan nga ko dundé. waaw def madame Guèye. Mhm. di ñu may ñu jaalewaat. Mhm. waa kër googu waa kër yi nga xamné ñom la seen euh, bakkanu njaboot si musiba bi ñu dal. Mhm. jaale ko Sénégal bi yépp. ak jaale ko tamit waati euh, waawoon rawatina alxalifatul am mhm. di ñaan yàlla comme nuñ koy waxee tout tànk boo xam ne amul bàkkaar bu yàlla jëlee bàkkanaam mun na am amaana muy nekk euh, lu am njëriñ ci waajuram yi ndaxte suñu diine daf ñu ko may te yal nañ yàlla may seen barke yàgg si dëkk bi ba lépp lu fi jafe-jafe mu deñ mhm. xam nga presque vingt et une heures trente cinq la ma directeur bi si boppam woo ne ma am na lakk bu fi am mhm. ma ne ko mbaa amul ay bakkan yu rot mu ne ma noo amaguñu bilan amuñu dara. Mm-hmm. ma ne ko ñaata lal moo nekkoon service ñëwoon naat mu ne ma en tout cas fukki lal ak ñett moo fi amoon ma ne ko surveillant bon loolu mooy question déjà yi nga xam ne man dinaa ko ko laaj. parce que bi ñu paree ci loolu man damay tourné waat ki nga xam ne mooy directeur général des établissements de santé. Mm-hmm. kii di directeur de cabinet ak surtout secrétaire général ministère. dama leen yónnee information bi. Mm-hmm. comme ça ñu jox ma tettal ak naka laa nar a taxawee.

balaa ñuy xaar ñi nga xam ne président la république moo leen yebal pour ñu représenter suñu ministre Abdoulaye Diouf Sarr si la ñu soog a nag commencé dérouler li nga xam ne moo ñu fa taxoon toog waaye bañ ko yëgee ak bañ fa duggee xam naa ne xool yi naqari na xool yi jeex na ndaxte liñ fa gis jéggi na daya. Mhm. alors tey lu lu sénégalais yu bari mënut a mooy euh, nan la lakk di amee ci bërëb yoo xamante ne ay ñuy soog juddu ñoom ñoo fa nekk euh, ñuy wax ni kenn nekku fa woon di leen surveiller ba nga xam ne loolu moo tax benn vie mënuñu koo mujj mën sauver. xam nga parfois loolu. duñ ko ñaawlu parce que yaakaar naa ne àdduna nu mu loloo ax nu muy doxee léegi. tax na ba loolu bëri mooy lu ñuy wax ay fake news ay intox parce que yaakaar naa ne Sénégal bu dee ñëpp dañu mel ni man. lu bëri ni lay demee mooy ñun bëgg nañu maa ko fekkee maa xam ne mu de ba pare maa si dugal sama loxo pour que nit yi mën moo woo wax ak man ndaxte dañuy bëgg affaire héros xam nga ñun bu ñu ñëwee dañu dem xool mbir yi nu mu demee te am na loo xam ne dinaa la ko wax. boobu. bokk na si yi nga xam ne man mii sam bopp jóg naa dem ba waawan bi ko waa Grand Moulin defaree parce que ñun dañu dugaloon xali ci biir hôpital waye Grand Moulin dafa ñëw gungé hôpital bi mhm. pour ñu defaraat néonatologie bi mu en ak yàlla na ko yàlla te ko àjjana ki nga xamné moy industriel du Sénégal bi Ahmed Amar mhm. bi mu nee ak représentant ñun ñoo réceptionné mhm. bañ ko réceptionné dara rek la wax directrice bi norme de sécurité parce que dañu dal euh, l'inger, té comme audit bi woné na vraiment vraiment am na foo xam ne ñun na ci parce que amna mutu motu motuwaay yo xamné ko il faut nga góorgóorlu ci. Mhm. té bañ ko ko waxé yaakaar naa ne ñu bëri xam nañ ko góor gi ñuy wax Amadou Fall Kanaar job qui est un colonel de des sapeurs pompiers bo gisee mom mu jaxlé parce que dispositif yëpp moom moo saytu won donc amoon na matériel de prévention. Euh, amoon na non seulement ay détecteurs de fumée presque 20 mo fa am amoon na lu ëpp 10 extincteurs yo xamné ne nañ ko fa mais xam nga comme lolu du suñu liggéey ñun. Mhm. mënuñu ci avance bu bëri parce que ba mu amé mom mi nga xam ne dafa defaroon tout le dispositif xam na ne am na fu mu gàllankoore mais lépp li nga xam ne moo waroon na fa am jël nañ ko dante am na loo xam ne ñun rafetlu ñu ko parce que mënoon na fa am te amu fa mhm. mooy euh, dispositif de surveillance par caméra loolu moom dafay loo xam ne dañ ko digal léegi képp kuy directeur d'hôpital boo amee néonatologie obligatoirement il faut moom dispositif de surveillance ak caméra am benn euh, néeg bu contigu boo xam ne képp ki nga xam ne da nga fay liggéey boo na dee génn foofu rek nga mën a dugg boo fa duggul il faut nga nekk ci biir euh, salle bi parce que ni ñu koy waxee ay xale la yoo xam ne il faut 24 heures sur 24 ñu nekk sous surveillance. Mhm. léegi nag ñi ci ñu ngi wax mais mun naa la firndeel ne ñaari. sage femme ak infirmière bi ñu nga woon ci biir. parce que dix minutes avant mbir mi di am ki nga xam ne moo yoroon garde administrative parce que. Euh, secrétaire général bi mun na ñëwaat ci loolu parce que yàgg na ci hôpitaux yi hôpital par force il faut mu am garde administrative garde administrative mooy genre contrôle mhm. est-ce que mbir yi yemb na est-ce que amul lu manqué est-ce que ñi fi nar liggéey ña nga seen menaces yooyu yëpp moom bi mu ñëwee dix minutes avant musiba bi di am moom def na tuuram robiram ci lañ koy soog a woo mais am na si ñaari xale yu jigéen yoo xam ne vraiment xam naa ne wax bi bëri na du défendre du dara mais dinañ leen ñaanal yàlla yàlla defal leen sutura parce que dugg nañ foofu ba nga xam ne ki leen doon euh, waxal ci télé bi sax naan moom moo doon sauver dugg foofu di sauver xale yi. Mm-hmm. nee na fekk na leen fa bëx moo leen xëcc ndaxte bu leen fa bàyyoon mun na am beneen musiba fekkaat ñu fa. Ndiaye si Ousmane Dia itam bu baax a baax monsieur Mballo Dia Thiam am mbégte dalal leen ci plateau bi alors euh, dañu xëy tey ci yéenekaay yi jàng ni am na euh, nombre de bébés yi ñu wax ni onze la am na ñuy wax ni 17 morts la concrètement officiellement lan lañ mën a jàpp par rapport ak nombre de bébés yi nga xam ne nii ñoo ñàkk seen bakkan ca hôpital bu Tivaouane waaw xam nga man bi may ñëw yónnee nañ ma benn video si benn euh, télé boo xam ne benn sénégal mi ngi foofu toog di wax wax na boo wax wax yu jéggi daya ba naan ay bi ñuy tabax ak mbir mi AGETIP parce que damay fàttali ne bi ñuy tabax euh, batiment bi temps professeur euh, bi jiitu ministre ab laay Sarr la woon te ay gàllankoor moo taxoon ba batiment bi démarre parce que bâtiment bi boo xoolee ca njëlbeen presque ay néeg lañ ko defoon. parce que dafa amoon ñoo xam ne dañuy ñëw hôpital ay médecins internes ñuy def wala stage rural ñu leen dafay loger. ba ñun ñu jël dogal ne il faut mu fonctionner parce que hôpital bi mu ngi màgg. te la fa naroon yëpp nekku fa. bañ ko defee dugal nañ fa lu ëpp 540 millions AGETIP moo ko tabax loolu kenn weddi ko sous-traitance am na waaye boo amul firnde mënoo toog naan ay sëriñ si lekk nañ ci ñii lekk ñu yaakaar naa ne loolu dëgër fit la. Mhm. te lu tax ñu wax loolu parce que ñun. ba bâtiment bi pare dañ ko ne il faut nga ibbi ko ñu saytu bâtiment bi bañ ko xoolee dañ ne bâtiment bi c'est aux normes donte am na lu manqué parce que boo ko xoolee tamit suñu hôpital yëpp lépp motul. Mhm. waaye bi mu waxee loolu ñun man tiit naa parce que dama ne kii. est-ce que nit yi duñ ko attaqué parce que lu mu wax ëpp na jéggi la day te amu ci benn firnde ñaareel bi boo xoolee sax nga dugg ci biir salle bi xool niñ ko disposition saal bi nga xam ne lu mu wax mënul nekk lu ëpp fukki bakkan ak njatt yu mu euh, juróom-ñaar yu mu wax moo fa génn àdduna loolu man mii mun naa ne amul wérul wax la bu wérul parce que ñun bu ñu demee directrice bi dañu njëkk def évaluation xool fii ci xool ñaata femme la ñaata kenn moo ci am ci yaakaar naa ne ñaar wala ñett triplé mais li ñu mën a jàpp nga xam ne mooy bilan officiel boo xam ne te ñëpp jox nañ ko parce que ñun ñoo ko njëkk jox jiitu réew mi jox ko ministre bi. fukki xale ak benn la seen bakkan rot ci biir euh, salle boobu. Mm. alors euh, ci wàllu installation yi gis nañu bi mbir mi njëkkee am ci hôpital Magatte Lô bu Linguère président Macky Sall jëloon na ay dogal ci conseil des ministres euh, le 28 avril 2021 wax ni nañu def auditu installation yi nekk ci structure hospitalière yëpp loolu est-ce que defoon nañu ko laataa ñu indaat dunduwaat drame bi amoon ci waawan. waaw boo ko xoolee. man fan yi maa ngi expliqué ne leen audit bi mënul nekk luy yemb ci ay fan yu néew ma ne ko dañ ko def processus ne dañuy daggat hôpitaux yi ne leen weer ñetti weer yi fukki hôpitaux yeneen ñetti njël li ba mu mot fii ba 2022 di jeex danañ ko def parce que audit il faut ay experts experts yi mooy experts yi nga xam ne comme euh, góor gi may wax di Amadou Fall Kana Diop c'est un expert en prévention incendie la euh, protection civile moom dañ koy woo li oh, état bi dafa am ay par exemple direction de la protection civile ci euh, édifice parce que édifice yi nga xam dañuy recevoir ay personnes publiques il faut obligatoirement nguur ci ñun def nañ ko ñetti avec la fonction avec direction de la protection civile dañu ñëwaat bindaat beneen courrier bala ministre di dem Genève pour dougalat ko pour ne ko il faut ñu jappal ñu seen commission boobu nga xamne moy saytu bépp bërëb bi nga xamne ñu ci ñu ngi fay dugg ñu mën ko def ci hôpitaux wu Sénégal yépp mais dañu nara xamne du Sénégal du hôpitaux rek fi nekk am yeneen édifices yoo yo xamne dañuy recevoir ay nit donc ñun bi bindé il faut ñom tam ñu defal ñu seen calendrier ñun comme xaruñu dañu jël ren man ci budget bi ma defar euh, décembre dama ci dugal au moins 10 hôpitaux yo xamne ne dañu leen di évaluer rapport bi génn na bi mu génnee dañu ne léegi ñun dañuy jël par pàcc njël jël yi nga xam ne ñoo gën a urgent parce que boo ko xoolee boo paree Linguère dañu jël Youssou Mbargane jël Tivaouane en tout cas comme EG dina ci ñëw hôpitaux niveau yi nga xam ne ñoo njëkk si pyramide bi ne na ñeen di leen leen jël fekk na dalal jàmm hôpital Grand Yoff yëpp def nañ ko ba rapport yi génn bañ ko defee am nay conclusion conclusion yi nag li mu njëkk may mooy ñun hôpitaux yi ci bëri nekkatul aux normes léegi nag pour la mise aux normes dafa am noo xam nit yi xamuñu ko nga tey nga ñëw toj hôpital tabax ko moo gën a yomb ngay tabaxaat hôpital bi ci biir hôpital. lu mais lan moo nekk ci normes yi lan moo nekk ci rapport yi euh, hôpitaux yu nekk hors norme loolu ça veut dire quoi. ça que ne am na dispositif yoo xam ne manqué na fa tey bu ñu fa dugalee nit amaana mun na am ay musiba. loolu moom am na rapport yoo xam ne dañ ko génnee ñu ne ah hôpital bi par exemple bu dee service bi baaxul. il faut ñu toj ko parce que boo ko gisee daan teg def nañ ko fa bañ ko defee dañ la ne am na service yoo xam ne tey mënatul fonctionner il faut ñu arrêté ko nga dem beneen hôpital ñu arrêté service yooyu parce que protection civile day ñëw xayma bâtiment yi léegi nag ñun audit bi bu mu génnee dafa am résultat partiel yoo xam ne jot nañ ko si ñetti ñeenti hôpitaux si la ñu mettre aux normes Linguère mettroon aux normes Tivaouane ba pare nekkoon di ne mise aux normes euh, hôpital Grand Yoff Dalal jam et cetera parce que ñun suñu liggéey fu muy yem moi, je bu ñu audit bi génn par exemple pour euh, dalal Djam, il faut 400 millions wala 600 millions ministre dans le cadre de la loi des finances day jël euh, budget d'investissement jox dalal Djam, 600 millions ne ko lié pour équipement la li pour déferat bâtiment donc euh, audit bi ñun non lañ ko xayma mais fu mu nekk nak yembul. parce que 40 hôpitaux nga def si ñett ñeent juróom kon liggéey bi lu si des bëri na lool. lan moo tax mu sooxee balaa may joxaat xat yi fan la fan la traîner dañu amul ay moyens assez de wala lan moo tax mu traîner. waaw parce que ñun du ñu inscrire xam nga euh, Covid bi daf ñu sonal parce que.